rahmatulah yéen ñi safoo si tànn seen émission riiru nawetaan avec Anty Sarr la star tey nag dañoo ñëw ci équipe bi nga xamantene moy équipe champion IC Jubo bokk zone 11 da ngeen may top mo wan leen li fi xew. tey ci seen biir émission riiru nawetaan ñi ñi nga xamante ne nii ñooy dirigeant wu ASC Daaru Cubb équipe bi nga xamante ne mooy équipe finaliste bi dama koy bàyyi mu présenté wu sëñ bi nuyu nañu la. waaw asalaamaaleykum waa Fidèle Info ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar waaw di rafetlu aussi seen teew ci entraînement wu ASC ASC Jubo bu Daaru Cubb waaw ma présenté wu maa ngi tudd Yero Sy nekk ex secrétaire général bu ASC bi. en même temps nekk délégué zone 11. gis na tey jii raar ngeen def mooy li nga xamante ne tey dem benn ASC mobilisation dirigeant dafay xaw a jafe tuuti dafa mel ni am benn collectif boo xamante ne nii da wu nu mu demee waaw ASC Juboo dafa nekk ASC bi nga xam ne ASC bu yàgg la. waaw yaakaar naa ne ñun dañ koo sax hérité parce que suñuy mag wala suñuy nijaay ñoom ñoo ko créé woon waaw depuis 1996. waaw teg ñu ci yoon aussi teg ñu ci organisation xam nga jàngal ñu tamit nan la ñuy booloowee waaw yaakaar naa ci tànk yooyu lañu nekk ci tànk yooyu kese lañu nekk moo tax tamit euh, waxtaan bi ak dajale bi gën gën a gën a yomb daal. ASC bu jël final dafa jafe lool lan mooy li nga xamante mooy seen secret ba nga xamante ne jël ngeen final ren ngeen yegg si fi nga xamante ne nii mooy quart de final euh, ASC d'habitude bu jëlee coupe ñu bëri dañ lay waajal pour nga génn sa poule sax c'est tout à fait un problème yéen naka ngeen def ba gérer loolu noonu. waaw waaw jël coupe bi moom yaakaar naa ne ASC bi mu ci lancé boobu waaw di ci liggéey waaw parce que dem nañ ay final yi final mais yàlla di def ñu koy ñàkk waaye bii nii yàlla tuddoon ñu waroon ko jël ci kaw lenn rek àndandoo man koo doon benn xam nga déggoo di xàccandoo aussi di dóorandoo. waaw looloo waral xëy na aussi tamit soutien wu population bi population bi yëpp parce que tey bu ci population bi jàppaloon bureau bi bàyyi ak bureau bi kese yaakaar naa ne kon fi ñu bëgg a egg duñ fa mën duñ fa mën a egg aussi tamit euh, xam nañ ne équipe bu jël coupe waaw ñëpp dañ lay xaar waaw ñun ñun tamit euh, bàyyeekuwuñu waaw dañoo nekk ci continuer liggéey bi nekk ci liggéey bi comme comme ni ñu ko daan defee xam nga metti na metti na nag pour ñu génnoon match de poule parce que champion moom ñëpp a xaar mais tamit euh, depuis boobu tamit euh, yàlla def na ñu ñu qualifié war a daje euh, benn équipe bu tudd àndu mbooloo aussi nekk ay ASC bu bees waaw ñu koy jàppee aussi ASC bi nga ASC yi nga xam ne ASC bu mag la nekk bu nekk ci zone bi parce que aussi daf koo wone xam nga sooy daje ASC bu mag tamit da ngay fexe préparé wu waajal comme moom it nu muy préparé waajal di ñaan yàlla bis boobu waaw yàlla may ñu ndaw ñu qualifié au ci demi-finale yi jéem a dëgmal mën a dëgmal pour wuti ji final bi incha allah. très longtemps dañ lay la fin. waaw mot mot bi lenn rek la. di woowaat euh, supporter ASC Juboo yëpp ci quart de finale bi ñu ñëw jàpp ci jàpp jàpp ci équipe bi pousse équipe bi fexe aussi ñaanal équipe bi di di woowaat l' population wu Daaru Juboo di leen ne ASC Juboo ASC wu Daaru la ASC buñ buñ amee ndam Daaru moo am ndam. di di woo ñëpp ñu ñëw derrière ASC Diougo gunge ko pousse ko ba mu ba yàlla may ko mu jël mu mu jël bi quart de finale bi ñuy jël ñu gañe ci ndam bu sedd guy ñu ñu ñu ñibbi si ak ak jaam ak salaam daal. di aussi benn message de fair play ci ci niveau zone bi zone yëpp. Mhm. ñu dawal fair play bi xam ne instant bi dañoo toll ci moment bi nga xam ne sport bi nit ñi dañ naan dafa bëri violence mais violence tamit day des ci ñun. waaw ñun bi ñu xamee ne ñun football bi dafa war a boole tey su ma dëkkee fii mën a xamante ku dëkk Cité Safo wala xamante ku dëkk Niakoulrab miinanteeg moom kon sport bi moo ñu boole kon sport dafa war a boole warul mun di xaajale waaw di woo ñëpp ñu ñëwaat jàpp aussi tamit dawal yëpp ci fair play ci jàmm ci dal parce que loolu lañ fi am daal ci parce que jàmm ci la lépp di jégalu waaw ba tey si seen biir émission bi nawetaan maa ngi ñaari coach ñaari coach ma leen di bàyyi ñu présenté wu kenn nekk ci ñoom coach numéro un nuyu naa man la coach Moundaga Moundaga Sow man maay coach ASC Diouf damay njëkkee si yow coach coach ñu gis ne tey bi ma bi ma première impression bi ma am tey bi ma ñëwee mooy da nga nekk si benn terrain boo xamante ne tey jii terrain bu xaw a bëri suuf la nakaree entraîné tey jii nii en tant que préparateur physique bu joueur yi tey yow genre ñoom est-ce que ñoom après duñu am problème pour charge surcharge wala genre yooyu noonu pour terrain bi bu bëri suuf. non loolu loolu loolu du problème parce que je pense que ni booy yi bañ juddoo ba tey. Euh, ci terrain bi la ñu entraîner euh, en plus euh, ñun am nañ ay système yoo xamante ne tey jii nii bu ñu defee charge am nañ ay méthodes yoo xamante ne dañ ko utiliser pour booy mën a décharger seen tànk yi allongé wu ñu mën a góor ci bal yi. coach ñu gis ne qualifié nga quart de finale te équipe bu jël ko en général pour mu qualifier day xaw a nekk problème ñu gis ne da nga qualifié nan nga préparé booy yi. bon. ni ñu préparé ba ñuy jël coupe bi rek mental boobu rek moo fi nekkaat ba tey mooy ni mu la ko waxoon suñu match de poule yi maa ma posé question naan ma ko temps yi la métti na waaye ñoom damay final waat ni ma la ko waxee rek

bon maa ngi xool nag nan laa koy contrer parce que gis naa ni muy jouer xam naa ni muy footballer eh, naxaar lu garaaw nag marché bu bu bu intense match bu sérieux match bu xamante ne Barça Real lay doon à ce que ñoom ñu mën a préparer loolu ñu bàyyi ko seen xel nga xam na ni équipe championne moom moo nekk fii te dañoo bëgg a récidiver parce que gars nee na ñun dañoo tam dañoo bëgg a wan gars yi ne que ñun du ay tàmm booy dañuy confirmer que ni ñoom dañoo mën. coach ñu gis ne da ngeen am ak ñi nga xamante ne ñooy waa ànd ñu am benn coach boo xamante ne ñoom seen coach dafa nekk koo xamante ne dafa expérimenté ba pare dafa am experience. jotee waxtaan ak moom ñu ne ñu yow yaay coach boo xamante ne tey jii. mais daal lañ nekk tamit aussi yoruñu ay centre de formation ba di créer fa d' expérience foofu te ànd mbooloo tamit liggéey bu bees la dafa ñëw pour passivité objectif bi atteindre na ko mooy génn marché poule te après dañu recommencé à zéro quart de finale la marché poule yi moom jël meilleure équipe te def aussi match pour jeex na mais tenant de du jeex ba léegi ñooy tenant de titre def aussi bu ñu ko fàtte te ñu ngay favori yi tamit aussi bu ñu amul fi di neexal wala ak léeg-léeg ana ko mën. lan mooy li nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy moom ngay ñaax say joueur ba nga xamante ne nii du naagu parce que tey jii nii bu ñu gisee yenn joueurs yi maanaam fukk da leen xaw a bu ñu jëlee. coupe euh, tey jii nii lan mooy li nga xamante ne yow yaa ngi leen koy ñaar su fekkee ñoom naagu ba quart de day nekk match boo xamante ne c'est à gagner. nañ yàlla mooy maye koo xam ne yàlla mooy maye moom mooy suñu naagu su seen foor la tam aussi il seen engagement xam na ñoo mën équipe bi tam aussi mën équipe bi tamit dañuy jaawale ak euh, la mais tam aussi soo ko mënee il faut nga wane ko sa doom soo ko yoree sax xam ne kii yaa ko mën daf leen koy wane que kii maa ko mën si côté yeneen si côté lépp nag tamit aussi zone bi tamit noonu la demee amul loo xam ne dañ koy nekk di neexal wala tamit si gaay fi nekk wala lii comme lu may wax sama booy rek ñun ñoo fi mën jarul ñu fi fekk mais jarul ñu dem si ñu koy naagoo fii ñoo fi ne ñoo fi mën ñooy dinaa di jiite pour bi suñu la nekk xanaa déwén keneen su ko jëlee tamit suñu kooku moo fi mën mais ren ñooy champion ñooy dinaa di jiite tam aussi. kon euh, suñu gis ne tey euh, sa ASC bi tey dafa nekk ASC boo xam ne dama remarqué benn affaire wala mobilisation bi dafay feeñ de trop yow loolu noonu doon nekkul benn poids wala benn sas boo xamante ne nii day xaw a diis sa kaw. bon ASC bu yàgg la ASC <laughs> bu yàgg tamit aussi public bi day xaw a sóor tuuti tamit aussi ñu daje ay débutants ay cité la village la tam aussi di mu nekk village ba nekk commune bi doomu dëkk bi la amul pression ñu ngi ñaanal mais rek waaye ñu ngi ñaanal tamit si dilaay ay booy ndaw lay jàmbaar lañ tam aussi ñu ngi ñu ne la fu ñu leen fekk ñu dañuy bu ñëw nekk ci terrain bi am pour benn pression bu ñuy tegu daaru la tamit aussi la. maxee la waaw ñu ngi lay jaajëfal coach. ok so mooy capitaine u ASC jubóo ngay bàyyi mu présenté aussi nuyu nañ la. di wax si turu joueur yëpp di leen jaajëfal si seen tur bi. Fabi. Fabi Fabi ñu gis ne yow yaay euh, capitaine ASC Djougo daaw yaa fi nekk yaa fi nekkoon wala. daaw maa fi nekkoon comme nekkoon meilleur gardien zone onze. ah macha allah Kapi capitaine xam yow instant bi nii je pense que yow demee woo ak benn pression wóolu nga sa équipe gëm nga ne yow ñu tey di nga di nga di nga jëlaat coupe bi. non pour le moment nii je peux dire que amuñu pression parce que on est le tenant on est le tenant du titre ba pare man ay guerrier la donc mën na métti quoi mais duñu muñu pression parce que gars yi ay jàmbaar lañ te football lañ lépp quoi daanaka donc je je veux dire que du benn match par exemple benn catégorie deux minutes wala ñu inquiété wala ñu leen am benn pression bu leen ko ñun on est à l'aise di waajal suñu match di ñaan yàlla may ñu dem ci kaw am ren lan mooy sa objectif daaw amoon nga jël jël nga coupe ba pare nekk meilleur gardien lan mooy sa objectif ren. waaw comme noonu rek jëlaat coupe incha allah nekkaat meilleur gardien parce que nii nii may wax ak yow. maa si course meilleur buteur gardien la am naa deux buts. ñëw. meilleur buteur bi trois la am maa si ay tànkam. jaay ah. fu ñu jaaroon. demaat final incha allah jëlaat ko indiwaatal leen meilleur gardien si possible meilleur gardien meilleur buteur. ñëw ba eh capitaine bi moom foowul dem mais capi da nga am ñi nga ne ñooy waa ànd woon ba pare ñoom ren dañoo am objectif ba pare nee nañ ñoom nee nañ ren soo leen di waa leen loolu tamit boobu équipe bu bu bu pare la parce que ñoom on peut dire que ni suñuy adversaire lañ si daan nañ la on peut dire équipe équipe moom booy joué ak moom da nga koy respecté ay normes ànd ma loolu c'est une très bonne équipe équipe bu baax seetaan nañ leen footballistiquement ils sont bons mais nag booy ñëw di boo baaxee tamit ba daje ku la gën a baax da ngeen nangu di leen xamal ni que ñoom fu ñu teg ni ñun dañuy ñëw pour àll bi nañ ko teg parce que ñun fu ñu ñu sax pour pare pour jël jëlaat jëlaat. coupe bi parewul pour. parewul pour teelu sax jubóo fii lay toogaat day gën a neex incha allah. dégg ngeen loolu tamit dañ lay bàyyi nga tëj. waaw di leen jaajëfal aussi di jaajëfal ñëpp. waaw di rafetlu seen teewaay fii nii. waaw wasalaam di leen wax nag jubóo bi ñu ñëwaat ak beneen facette bu bees ak beneen façon ak jubóo bu gën a neex incha allah te parewuñu pour dégg leen dara dañuy jëlaat ñi. président supporter dañ koy bàyyi mu la. waaw sant nañ bu wér. naa bañ sant yàlla julli si yeneen di sant suñu ñaari waajur di gërëm waa Daaru Cub sant di gërëm di sant surtout maa ndaw yi ñun ndaw ay président supporter ay seen jubóo loolu la yàlla def waaye man xale yi ñoo siy ànd xale yi nga xam ne kenn amu si vingt ans ñoom ñii kenn amu si vingt ans te xale yi ndaw lañ te bëgg dëkk bi te ñun ay seen ñoo nekk fi di xeex wala di xuloo bu ñuy dem camion la ñuy yéeg bu ñuy ñëw camion la ñuy yéeg parce que bu ñu dem ñoo suñu doomu dëkk yi ñoo simool ñun duñu simool xale yu jubóor gis nga leen ay xale yu ndaw lañ dañoo bëgg seen dëkk te ñun ay moomin lañ xeex ndax ay moomin lay barki yaa Rasulullah ñun duñu xuloo duñu xeex fair rek ndax lépp jàmm si la lépp xaj gis nga nawetaan xam nga lan la nawetaan foo la kaf foo ree kun dóor nga dem fekk sa morom loo xam ni moom la yàlla jagleel ndam man xam naa ndam xam naa defet xam naa machine yi dund naa ko lu ne man 2016 ba léegi maa ngi ay see doon président supporter di si ànd ay tout tànk boobu ba léegi musuma bàyyi ay eh, man douzième gaynde laa de en même di ñaanal sama grand Moustapha Moustapha borom Fidèle Info maa ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ndax Moustapha yaakaar naa bi mooy troisième fois mooy fois di nga fekk may doon président supporter bu fekkente ne maa woon gaale aji numbe Sarr kon Moustapha borom baax la moo tax bu ma a dañ ma sëriñ rek ma bàyyi ma ko bàyyiwuma leen sama nit nga ndax sama nit démb ñëpp xam naa leen te Moustapha dafa ñàkk ki ñaan doon sama nit yàlla boobu yàlla na yàlla defal jàmm seen sut a xam foo a na fa la ñu mën yàlla bari si kàttanu yàlla loolu wax nag no stress stress baaxul day def loolu nit. xawli boo la gisee ku dox ki ni leen ko daara jub dañ koy faj mu wér. ay yaa rasulullah dof 40 mille dañ koy faj mu wér dem yoon rek. ay ay ay ay waa ñi ngeen war a am ànd mbooloo. waaw ñoom woote nañ ne que ni ñoo leen dàq supporter dàq leen a yëngal dàq leen fekk su boobaa man maa yëngal maa supporter maay football te maay gagné si kàttanu yàlla. maay football maay yëngal maay duy stade ba mu fees te maay gagné si kàttanu yàlla. dégg ngeen yéen a ngi dégg. maay football. maay door maay yëngal maay gagné. bu weesoo loolu yëpp di woo autorité yi nekk daal ku si mel ni ñoo xule suñu grand la moo nekkoon président bi daaw barke moo jëloon coupe bi moo fi njëkk a dugal coupe bu senior ñoo xule ma ne ko wax sa wax sa mbaax waaye du wàññi sa mbaax dara ñoo xule dama ñëw si dëkk bi ñu jël coupe bu senior dëkk daa neexul dañoo jël coupe bu senior ren Mori Samba Weñ moo yor équipe bi di ko ñaan nag mas biir ñëw nga jàpp si def fooye falaam nga jàppale ñu te yàlla tax Mori Samba xale yi dañoo sonn jàpp si te yàlla tax jàpp si te jox booy camion may booy tige ñu ngi stade jàpp tóor parce que yaa Rasulullah ñu lay sant di la gërëm Mouri Sambala ñu lay sant di la gërëm di sant Xama Diop di sant Mara Thioub di sant waa Daaru Thioub ñoom yoro Mbaye Omar Sylla waaw di lañ leen indiloon tey si seen émission Riiru Nawetaan ak Anty Sarr la Sarr avec l'ASC Djoubo de la zone onze tungu du teew ñu nataal nekk na émission bu neex koñ bu am engouement ak motivation ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon thank you for all merci

Isso, isso é muito bom. E aí, dá. Vai jogando para aqui. E aí, dá. Vai jogando para aqui. É. É. Eu já vi, eu já vi o Cícero, isso é muito bom. E aí, dá. Vai jogando para aqui. E aí, dá me manda para aqui. É. É. É, hoje em dia, hoje em dia, assim, se é muito bom. Daí, linda. É, me manda para aqui. Daí, linda. É, me manda para aqui. Ei! É. É.